Euh, discours bu mu amal Grand Théâtre devant nationalité devant sénégalais yi nga xamante ne ñoom et ak wërngal képp na ministre de la justice dafa révélation bu mu ci def ñu ni d'État la sénégalais yi que di ministre de la justice daf ko téléphone pour ko ki nga euh, Alassane da koy da koy est-ce que en tant que premier ministre ou en tant que ki nga xamantene gouvernement bi c'était à Ousmane Sonko de faire ses révélations euh, dafa am lu la séparation des pouvoirs effectivement cette séparation des pouvoirs tant annoncée est attendue par ce régime n'a pas encore vu le jour et ne verra jamais le jour. Hmm? Si. Parce que la mimise, la mémise de l'exécutif dans le judiciaire n'a pas sa raison d'être ñoo ko sénégalais justice bi justice bi ibbi ay front dal ci justice bi dal ci exécutif bi amna lo loo xam te dossier yo xam te ni diw ci tu vois dañu wara a justice mu libre wa mais mënoo am un ministre de la justice ba xam te gis na ni amna na ko bok ci yow ku def naka su waru la lacc c'est-à-dire kon laaj bi li ma ciy jàngat bu ko ne won bayil mu bay bu ko ne defal mu def lool nak dafa dak que la justice soit indépendante que mu baña am kumba am ndey kumba am ndey ndax def nañ ko tout récemment ci kaw ba jaxate et azura Fall moi je suis pas pour nit ki di saga bugumako nangumako parce que bugguma ma dama bëgg nit ki buy wax mu teg ko ci xam-xam waaye mu teg ko ci yar ak teggin parce que réew mi dañu dem ba valeur yi dafa yàqu te li ko yàq nag leen rek la lu bees la ci ci acte ci champ politique bi arène politique bi au temps de Diouf au temps de la commencé xaw yàqu mais fii la gën a yàqu mais dañ doon gis débat yoo xam te ni nit ñi dañ ci doon jëriñu donc loolu la ñuy xaar ci acteur politique yi moo tax dañu war a assainir ce milieu saaga d'accord ma ci kuy wax li ngay wax na indi ay preuve yu d'accord d'accord une institution comme le président de la République qui est le père de la nation mon am comme xam dafa bokk ci au vu au su de tous les Sénégalais De Dag saaga fi mu gën ba pareil, nga procureur war a autosaisir ñu bàyyi ko ci loolu ñu jàpp beneen gor boo xam te dafa tuumaal ñu laaj ko mu indi ay kayitam teg ndax valable na ndax leer na ndax leerul am na audace su taxaw wax jaar ci li mu jaaroon kon nag réew mii kumba am ndey ak kumba amul ndey bañ doon jooy warul yeewiwaat waaye nag réew bu njaaloo nekkee adam ku wàcc sa soxna rek da ngay tooñ hmm? moo tax il faut que ñu xalaat jikko yi bu baax te lii ñuy doxal nii je ne pense pas que ni lii moo taxoon ñu fal leen réew mi buñ ko bëggee defar nañu bañ a par parloo nañu teg lépp ci dëgg hmm. jubal googu ñuy wax na fekk ñoom ñu jub jubbanti na fekk ñoom ñu jub ba seen ñi ñu àndal ku ci dëng ñu jubbanti ba ëllëgee ki nekk ci opposition bi walla askan bi ku ci jubbati ñu jubbanti la parce que jub jubbanti boobu ñun ñëpp ko soxla waaye nañ ko def nag ci ay règle de l'art ci dëkk waaye làq doom dóor doom loolu moo taxoon ñu fal leen euh, Ajora Fall def na lu gën a garaaw tey ñuy wax ay ministre de justice bi woote mais c'est du n'importe quoi Oh. est-ce que du mettre mal à l'aise population bi ak de la justice bi. c'est-à-dire il a un problème de communication il lui faut des furies en communication yoo xam dañuy gravité autour de lui nga xam te bala moo wax man loolu laa jàpp sinon bu fekkee am euh, des furies en communication bu nekk ci wa ci ñu ko entouré kon xam-xam. mais xam nga ku ñuy bind bindal discours nga mën a corriger maanaam discours bi nga corriger ko mais koo xamante ne euh, maanaam comme ni ñu takkal sonk noonu day wax pour xalaatam euh, gis nga communication dafa am solo bu la nit ñi joxee réew communication dina am lu bëri lu mu yàq mhm. communication dina am lu bëri lu mu defar communication dina dem sax ba jaxase ay réew ba taal réew donc man gisuma ni mënul fal un ministre ba pare ni da koy jaxase ak askan bi gis nga bu fekkee da ngaa teguwul ci lu dëggu ndax askan bi di xalab yàlla moo lay weer buy génn sax doo ko tey moo tax man la avoir un de euh, des conseils en communication yoo xam ni bala ngay wax même ci discours bi bala ngay wax xam nga dañ la point bi na nga ko aborder nii. na nga ko aborder nii ba nga xam li ngay wax da fay leer te do def ben fay de communication mais mënul ñak nak ci moom parce que euh gisuñu euh Ousmane Sonko comme étant le le chef de l'opposition du du du du gouvernement ben Ousmane Sonko opposant la ñu gis xëy na lu mu namoon la et puis dans daal ci kal opposition yi il faut que mu arrêté ko te mu xamni ni du ay caaxaan nañ ko yar dañ ko yor ci dal nañ ko yor ci dëggu nañ ko yor ci jub ak ci jubal ju ñàkk jubal nag mi ngi tàmbalee ci nga jox nit ki ay mu am ay prérogatives yoo xam daf ko war a doxal te bañ la cee laaj di la laaj sa xalaat ndax daf ko war a bàyyi wala daf ko war a war a bàyyi loolu dafa war a dakk ci réew mi il faut qu'il y ait une séparation des pouvoirs le pouvoir exécutif n'a pas le droit de s'immiscer foncièrement du pouvoir judiciaire donc il faut que tu d'accord.